Euh, axoon bi li ñu ko waxee rek tokkal la njàng njàngee ni ñu ngi ci daara yi tokkal la ñu ngi ñu ngi góorgóorlu ci maxaari bi ak tajwid bi tokkal la fi na daal euh, ñu ngi ñu jëm jëm kanam waaye nag fi liñ seetlu ba tey bokk na ci weer koor bi yi ñuy ci def ci weeru koor bi moo di rawante ci ci ci ci alxuraan koy defee rafet lañ ko tokkal la sant nañ ndax loolu ak wane ni Euh, euh, askan wi ñu ngi jublu alxuraan ñu koy bëgg di ci xeer xale yi ñu koy jàng waaye nag li li ci xaw a li li ma jaaxal daal man fañ fañ koy defee fa ñuy def fay joŋante seen lañu bari yu bari fi ñuy joŋante ci Ndakaaru bokkul yëg man si sama gis-gis yéen taamu ndax xam nañu ja ja néegu yàlla mooy mooy wala ñu um, jàkka wala jumaa mooy wala ñu wax néegu yàlla ci ko suuf kon li ma xalaat moo di jaadoon na bu ñu def rawante rawante axwaan wala rawante axwaan rek. ñu def ko ci barab yàlla jàkka yi wala jumaa yi wala boog barab boo xam ne eh, nitu yàlla moo ko moom moo ko tabax ni ko yu mel ne que Sëñ Tuubaa gi nekk Colobane eh, kooku xoox nañ ko toogal yaatu na wala wala feneen barab bu dee ne moom wala fi mel ni Massalikul Jinaan dégg moom man man demagu fa dégg gisuma mu mel ndax bañ koy tabax bañ tàmbali tabax ba léegi man demoo demoo Dakar moo tax xaw ma nu mel foofu waaye jàpp naa ne daal mas war na jaar def ko def fa lu mel waaye li ma def lu li ma la am daal moo la ñawal man axoon bi ñu taree ci ci barab yu ñu xam daal kenn tàmmoo ko ci Ndakaaru xam ne man man sa fa ja mooy yàlla yooyu nag man sa fa am dafa am te moom man dafa am daal ci ci ndax barab yooyu ne fay dem lu ku fay def alxuraan ñaan dafa ñëw di def seen seen i po te mën nañu fa def sobe ak yenn kenn daal loolu kenn xamul leen dafay xew kon nag li li rawatina te jaadu xam ne ko jox gëddaam bokk na jox gëddaam moo di di ko di ko tare fu fu fu sell fu laab fuñ tàmm fu xam ne ku dégg sa sa xel lu ci am xel xel ñaar doo ci ñaaw sa doo ko ñaawlu waaye pare yu bari taa ci Dakar daal man kii sama rafet rafetlu ma ko loolu waaye bu bu bu bu taree beeg yooyu moom toogal si rafet lañ ko sant nañ ci yàlla jëm jëm ak ak ak bëgg axwaan ak jëm kanam ngir xiir askan ci axwaan ndax loolu loolu moo ñu war waaye fi ñu koy defee daal moom mën nañu tàmmul dara dara. te bari na loolu jamono yi ñu koy def ci ci weeru koor yi dangay dégg ñu bari ñu ñu ñuy kiiro ñu def yooyu joxante alxuraan ci barab yu ñu tàmmuwul loolu daal kii fi war nañ ci wax ñi nga xam daal ñoom lañ jënk yenn ndam tànk yi nga xam ni dañoo war taxaw dañoo war a wax wax yu mel noonu ngir ñu ñi bàyyi ci xel ci kaw loolu moo di ñu koy ñu koy taxawee ñee def loolu tamit ñoo dañoo war ñi nga xam ne lislaam moo xam nañ fan na ko ko am na ci xam-xam mooy fa lañ ci lañ yëngatu ñu waxtaan ci ñoom lañ ko def fi ñu ko defee ak ñu defee yëpp baax na ci xëy na sax ñu am nañu waxtaan waaye dafa des waaw waaye waxtaan ci ñëpp daal bañ a bañ a ci kilifa yu mag yi su boobaa su boobaa day jar sax ñooñu boole leen ak ñu ñu leen xelal ñu seet fi ñu koy defee fu gën rafet ndax sama gis-gis daal bokk na ci barab yi lu mel ne axaan ci def noonu ndax euh, dañuy dégg naan ñu naan wax naan laawaan daanu am laawaan man dama koy dégg rek xamu ko waaye sama sama xalaat moo di lii ma ma mën a mën a nekk ab pàcc ci laawaan mën na mën ci mën na ci nekk ndax dañ ko defee ci ci ci ci ci nattali daawul dañ daan xaw a ñàkkee euh, warmal alxuraan te lii bokk na ci fi fi ñu koy fi koy taree barab yooyu bokk na ci man sama gis loolu bokk na ci kon nag jaadoon daal ñuy soppi doxin woowu daal. fi fi bu ñu defati alxuraan yi tari ñu def ko fu fu gën a fu gën a xel nangu jàkka yi wala jimaa yi wala barab yoo xam ne doo kër kër kër lislaam moo moo tax a jóg ñu def ko foofu loolu tookal la am na yaakaar daal loolu tax yu mel ni bokk na ci waral xëy na ci sama gis-gis naqar jamono yi maam xeexu yi xew jamono yi nit ki euh, accident yi xew ci télé bi bis boo toll rek dégg ñu ñi faatu ba dem rek am na ci ndar dégg nañ ko ak fan yëpp ak it ñaa ko def ko ñaawte fi sàcc yeeg rey nit ñi ah ak may yàlla yu ban yi def ci xale yi fan yëpp dégg nañ ko jërëjëf ñu ko nattali yooyu yëpp war na xëy na bu bokk na ci sagar gi nit ñi sàggan ñàkk a sellal gi.